bokk internet senegal set ñoo ngi leen di nuyu di leen dalalaat fii ci kër oustaz Alioune ñu doon am ak moom waxtaan ci li xew ci réew mi euh, oustaz ñu ngi lay nuyu. bismillaahi rahmaani rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli maa ngi leen di fay nuyoo di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi leen déglu ci biir réew mi leen seetaan ak ci bitim réew di ñaan borom bi jataay bi bu gàtt gi bu gudd yàlla ñu amal njëriñ ñoom wala ñu amal njëriñ ñun kon amal leen njëriñ ñoom amal njëriñ képp koo xam ne yaa ngi koy topp jërëjëf Euh, Oustaz euh, jamono yi am xew-xew bu am ci àdduna wërngal képp mu di ca Chine am coronavirus bu fa xew ba yenn ci doomu Sénégal nekk fa euh, tey ji ñoom ñu doon ñaan ci nguuru Sénégal mu jël si leen waaye day mel ni matuwaay yi amu fi loolu loolu en tant que conseil économique social et environnemental ban gis-gis nga ci am. jërëjëf bu fekkee question bi mooy ñàkk jëli gi day xam naa jëli gi mooy dal xelu. ñii parent yeeg mbokk yeeg waa réew mi ñàkk gee jëli xëy na peut-être mën naa gën a dal xel ci geneen àll gi parle bi kay mooy bu fekkee jumtukaay yi amu fi na wax wuutu jumtukaay yi wax ji mooy dañ leen jëli wala dañ leen jéem a jëli wax jooju mën naa am eh, bu ñu ko waxee noonu mën naa am dënn yi di jóg te itam duñ ci jàq ndax sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon ci noonu de daf ne woon bu ngeen déggee ab feebar ci barab bu leen fa fekkee bu leen génn bu leen fa fekkut bu leen fa dugg moom loolu la jàngale woon bu ab feebar nekkee ci barab fekk leen fa wala bu feebar nekkee ci barab bu leen fekkee ci barab ba bu leen génn muy benn bu leen fa fekkut bu leen fa dem moom loolu la jàngale woon donc kon étudiant yaa nga siin nañ leen jëlee buñ leen jëli bu jëntukaay yi amee te ñu xam ne jëli gi mooy dal seen xel dañu leen di jëli buñ leen jëliwut it ñu wax kàddu yoo xam ne la alquran waxoon ne qawlun maarufun xayrun min sadaqa yatbau aza sunu borom ne na waxi njëkk moo gënal sarax boo xam ne bu ginnaaw sarax ba aw xastee cay tege jot ci laaj ba am solo bi lan ngay wax euh, juru ndongo yi nga xam ni seen xol xawoon naa jóg gannaaw bi njiital réew mi waxee waaw mooy li ma wax sànq rek li ma leen di rek mooy daal ñàkk gee ñëw mën naa am mu gën gën ñëw gi nag peut-être ñun moo ñuy gënal waaye dara mën naa ñàkk gën ñàkk noo gënal ba noppi gën loolu moom noonu la àddunay doxe léegi nag parents yi kon li ñu wax rek mooy ñu dal rek ñun ñëpp nu ànd dékk suñu borom suñu loxo di ñaan pour mu aaral nu sunu étudiants yi nekk foofa aar ñu sax ñun ñu nekk fii nag ndax yëf yi du ñee dañoo nekk fii wala ñu nekk fii sunu borom daa moom asamaan moom suuf am ay soldaar yu kenn xamut penc mu koy tooñ mu ne te salfaañe mën naa jël benn soldaar ci soldaar soose yebal la ci ñoom soldaar bi doo ko gis mooy virus bi nga xam ne moo feeñ fële tey ci siin bu neexee suñu borom mu beneen feeñ feneen ndax Ebola feeñoon na fi beneen feeñoon na fi yeneen a nga fi kon loolu yàlla mooy wane loolu kon nag ñàkk gi ñëw mën naa am sax mu gën ci ñoom wallahu taala alam wa shukran ñu nemmi ko ci biir réew mi violence ci bëri na lool bis bu jot nga dégguñu ne rey nañ kii faat nañ kii wala agressé nañ kii eh, loolu ban gis-gis nga ci am ban jàngat. waaw ñun suñu réew dañ dul fayul ko tooñ loolu moo andi lépp dañ dul fayul kuñ tooñ ndax alxuraan daa wax ne kuñ tooñ nañ la fayul mais bu fekkee yow dañ laa tooñ te kenn du la fayul boo léegi da ngay fayul sa bopp loolu lay benn bu ñaar ba bu la wóor ne boo tooñee kenn du fayu ci yow dangay ñemee tooñ te tooñ baaxul pénc bi lu rek la. bi ñuy wax naan dañuy wax ne peine de mort nangam peine de mort nangam lan mooy peine de mort mooy ku tooñ nañ la fayul yàlla loolu nag yàlla ko wax ci alxuraan benn ñu gëm ne yàllaa ko wax wala ñu ne waxu ko wala alxuraan ne amul alxuraan ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab li tax rey mën fee jóg ngeen dund ci sécurité ku bëgg nelaw nelaw ku am alal ñu sàmmal la ko leen rek ko mën a jëlee ñu ne lan mu ne kuñ tooñ ñu fayul la yàgg si technicien bi tey bu fekkoon mooy sa grand mu def la dara nga ñëw boole ko sa papa sa papa ne la day fo rek mu ñëwaat defaat la dara nga wax ko sa papa mu négliger une troisième fois loo néew néew doole bu la ko defee da ngay fayu mënu ci dara parce que loolu mënul lañ mooññi nit mooy lan mooy pénc moo xam ne ku fa tooñ kenn du jàpp sa loxo kenn du la def dara léegi pénc bi day neex a tooñe fi ne rey gi càcc gi dorog bi yàmbaa ji nangam ji nangam ji nangam yooyu mën nga ko lim ba mbari lool loolu rek moo ko waral mooy ki tooñ leen dul sanctionné léegi nag bu fekkee penc mi ku ne sañ na def nangam bitim réew fu nekk sax comme neex boo bëggee tooñ nga ñëw fi tooñ jàmm na ñooy yàlla yàlla dimbali. oustaz beneen xew-xew am fi mu di wàllum viol di sàkkuteef Euh, ñu fan yi ñu nemmeeku nii am na kenn ci ñi ñu wax sëriñu daara ñu xawoon ko tuumaal ñu tuumaal ko sax laay wax ci wàllum sàkku ay xale yu mu doon jàngal ba ci bërki dem bi tamit am na tubaab buñ ci jàpp fii ci dakaar Sacré Cœur moom itam ñu tuumaal ko ci xale yu mu doon sàkku loolu yow euh, ban gis-gis nga ci waaw bu nu gëstoo ba gis ne sëriñu daara bi moo def loolu sanction yi ci pinc mi sunu borom nee na bu leen ko teg benn ñaari ngeen koy teg bu ñu gëstoo ba yëg ne moom moo ko def alxuraan daa wax ne man yaati minkunna bi faahishatin yudaaf laha al azaabu difayni soxna yonent bi la ko waxoon ne leen ku ci def yéen yow soxna yonent lu ñuy tere su ma dee dóor ñu fukk yar yéen ñaar fukk laa leen di dóor kon suñu gëstoo ba yëg ne moo ko def su boobaa sanction yi loolu la ci lislaam wax léegi nag mu des nag lu mel ni viol te yéen xam naa sax ngeen di noyal baat bi naan sàkkoo ak ñoom seen yooyu parce que siif lay tudd siif siif jigéen su boobaa comme lu garaaw la nañ ko gëstu ba mu leer ne effectivement moom la seet ba xam sëriñu daara la kañ la ubbi daara ji ndax jamono yi ñuy wax nii fekkoon na ko yor daara ñu gëstu ba gis ne lii moom la loola moom kenn du ko jéem a défendre déedéet li ñu wax rek mooy sanction yi daa war a tàmbalee ci moom ba ñëpp xam ne lii kenn waru koo def rawatina nag bu ñu nee sëriñu daara ñun ñëpp it nag ñooy am kersa ñun ñun ñu ñu ay ay sëriñu daara ndax bu dara xewee suñu biir dana ah gaa yi lii seen mbir la ñun ñëpp ñu takk ndeysaan moo tax ñun ñëpp rus waaye daal yooyu daal war na fay jóg tubaab ba def na kook sëriñu daara ba def na ko sénégalais ba def na kook ci mën a def rek. war ngaa yëg ni li ngay def dañ koy tere jërëjëf. loolee ñuy tuumaal sëriñu daara bu fekkente ne am na dina gàkkal deerub ñuy jàngale alxuraan waaye itam ndax loolu du tiital jur yi ngir ñu bañ a jël seen doom bi di ko yóbbu ci daara ji. waaw loolu tax may wax na nañ gëstu déedéet daara yi moom lu yàgg yàgg daara rek lay doon barab bu jàng ay alxuraan yi lu yàgg yàgg moom lay doon lii daa xew ci daara yi kon du ma yóbbu sama daara kooku nag mu daa far tooñ pénc mi ñoo dul xàmmee yarkat jàngalekat sëriñu daara ndax fu mu gën a yombe moo leen gënal nañ débranché wu ci xale yi rek nañ dem loolu nag kenn ko def bu jenn waay ñuy ubbi fii rek nga daan fa jël sa doom daal di koy jox ki nga jox sa doom ji kan la te itam état bi daa war di toppatoo ba xam ku ubbi fenn na da ngay jàngale est-ce que sañ ngaa jàngale est-ce que am nga autorisation est-ce que compétence yaa ngi fi est-ce que locaux yi war sax war nañu fay jàngale donc bu ñu ragalee def yooyu yu mel ni ma fi am booy bëgg ubbi école privée fran bu français dafa am këyit yu ñu lay laaj am déet somme bu ñu lay laaj autorisation ah euh, déclarant responsable bi ay diplôme am soo ubbee ñu xam ne kii moo ubbi barab sàngam ñu mën di saytu njàng mi di respecté li xale yi di jàng. mais daara moom ñu bàyyi ko nii rek comme ça mu nekk loo xam ne li lu informel la comme neex rek ubbi fenn euh, dajal fa say xale ñu naan daxala dugg na xaraja génn na rek loolu tam munte demee noonu waaye loolu war te yàq nañ ñu jàpp ne kon kon kat daara yi yëpp nii la mel déedéet bu fekkee mbubb dafa am ab tilim tilim duñ sànni mbubb ma dañuy fóot tilim tilim ba passé mbubb ma solaat continuer jërëjëf ci sa laaj bi ndax tey comme man ji comme ni ñuy xoole école tubaab yi ni ñu ni koy jàppee école français comme fi ñu jàngee ñun daanaka moom la ñu gën a toppatoo que école daara ndax kon amul mënu leen xalaat rek ni njiit njiit yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi dañoo am parti pris ci wàllum école yi. waaw daara de moom yal na ko yàlla yërëm daara yal na yàlla yërëm bi tubaab bi di ñëw ci réew mi di ñu coloniser xaw ma sax bàyyi na ko di dem léegi ba tey yaakaaruma ko waaye dafa ñëwoon gis ni daara mel daara déranger ko mu taal daara yu bari rey sëriñ su bari sàngi sëriñ su bari song sëriñ su bari lool nag daf noo topp ba fii nu toog daanaka mooy suñu penc dañoo defe ne njàngum alxuraan daf noo jëriñul dara xanaa ilimaan waa bilaal ñun nu lañ xalaat bu dee njàngum tubaab nag dañuy defee ne moom danañu amal njariñ ndax mën nañ cee génne ay ministre ay député ay gouverneur président loolu mën nañ ko cee génne moo tax xaay bi la ñuy defee fii na lu ñu fi def dara loolu nag daf noo topp ba dimb yàlla na ko fi yàlla jële jërëjëf. ndax yéen yéen yéen ñi nga xam yéen jiite daara yi ndax yéen a ngi def ay jéego ngir loole mën a soppiku waaw jéego yi kay bañ amee indépendance bi léegi ci lañ nekk ndax la tàmbali woon ci ñoom xaaj Moustapha Cissé jaar ci Abdoul Aziz Al Amin jaar ci ñoom Cheikh Ahmed dem ca Jurbel jaar ci jaar ci bu ku ku lim juum ku ci nekk sa jéegu guddi ak bëccëg moo doon daara yii am sañ-sañ ci pénc mi bu ñu génnee te budget ci 40 pour cent daara am 20 pour cent école am 20 pour cent ñu dem loolu lañ mënta am ba bi suñ jonte ji daara amul daara daara daara lu jóge ci bi état di ñëw ci daara xawuma ko xanaa individu bi jël xaalisam wala ceebam mbaa suukaram yóbbu ca daara ya loolu laa ci xam léegi nag nun xakay noo ngi dox ci loolu teewul nag ña nga suñuy daara fexe ba daara ji nekk daal jox ne xale boo fa ñëw da nga lekk lu baax di di tëdd fu baax ñu wutal docteur bu lay faj wutal gone yu lay toppatoo loolu nag ña nga ci waaye am ab am euh, réew nag moo ci war na jiite wala ab état moo war na jiitu ci loolu ñu topp ci ginnaawam 40 pour cent bi ñun ñëpp ci dugal suñu loxo yow mii sa caméraman bi ak seen chauffeur bi yéen ñëpp yéen ci sa ak ak man mii léegi nag mu ci dugalee suñu loxo nag ñu ñu teq ca 40 pour cent ya daat ni ñiy jàng tubaab ñoo ko moom kumba am ndey kumba amul ne nag yéen wuti leen lu ngeen def nga yalwaan ñu ne déedéet nga dugal ci koñ bi ñu ne déedéet do sëriñ ba yalwaan ñu ne déedéet léegi nag loolu loolu dara gën koo métti shukran lan nga yaakaar ni moo waral euh, ñu kumba am ndey ak kumba amul ndey am ci daara yi ak école française. waaw li ko war laa wax léegi mooy tubaab bee defee ne njàngam alxuraan jëriñu ñu dara. xanaa nekk ci jàkk ja wala nga nekk bilaal loolu lañ yaakaar ne moo jariñ fekk na au contraire tarbiya bi am ci nit ba mu nitee buñ ko dénkee kees du ko lekk tool na jamono bi ministre daan jaar daara jóge daara ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw école boobu daaw dégg këpp kees de cent mille francs sax administrateur daaw ko daaw ko jëkk jël ci keesam léegi dinaan diw jël na milliard diw jël na milliard bu bu bu rapport yi génnee da bu rapport yi génnee da tiit ay fukki nit ñeent ñaar fukki fan fanweeri nit ku dem am na ci ko xam ne la yàlla xam nag waaye daal bi nit daan jaar ci daara ñu formé ko ci daara jàngal ko daara mu dellu si dem jàngi tubaab wala mu jàngale leen bu ñëwee la daara def ci moom mooy jom doylu am ngor loolu toujours ma cité ci ay ministres yu bëree bëri yoo xam ne ndar lañ jaar jàng alxuraan jóge ca dugg ci école yi jàng ba ñëw loo leen mën di jox duñ ko laal Serigne Lamine Diop radiyallahu taala anhu wa dafa nekkoon directeur dafa nekkoon directeur euh, douane directeur général bu douane ab sëriñam alxaaji Abdul Aziz ab otoom ñëw ci port bi ñu war koo génne mu jox ko dossier ne ko génneel ma ko su bindoon ci kay du ok rek ñu génn ko bu ca tàmpanoon ñu génn ko dafa laaj ñooy liggéey ci nu transfert yi oto bi ñaataa koy génne ñu ne ko fi nekk ne un million quatre cent moo koy génne ca kontam la dem génn ci un million quatre cent fayal oto bi oto bi génn loolu bu xew ba léegi fi ne réew mi saax saaxe di gunnaa naat kaar kaar suñu tali yi tàlli suñu yëpp tàlli waaye fi ne loolu rek ko waral nag ñàkk jaar ci daara jaar ci leneen loola mën laa yar beneen yar boo xam ne bii da ngay da ngay teey waaye ko dem yar woo yàlla nu dimbali